Waly Seck. Waly. kanamu tribunal la jëm. ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet. moo fay dem. waaw Faramareen bi. bi. Hmm. la ko sabab nag mooy dóore. dóor. waaw dóor. du dóor. dóor. dóor. dégg nga loolu. Ah, juillet. waaw parce que daal nee nañu Waly daal. dafa am ñu ko doon agressé. moom tamit mu dajale ay gaayam topp agresseur yi. Ah. waaye moom Waly ñam dóor. nekkate ay jaaykatu mburu lañu. ay jaaykatu mburu lañu te bañ leen di dóor ne leen ñun duñu agresseurs yi. ay jaaykatu mburu lañu waaye jàpp leen ay comme dóor leen. dëkkam dóore fa koy tas. waaw na la toll may dóore. <laughs> moom jaaxal. ah merci Lamine merci merci boy <laughs> merci Lamine. <laughs> libération. libération fu mu dikk. Ah, ah, kii.